voilà donc ñu jàll ci ci leneen euh, am na benn euh, événement bu xewoon la dernière fois il y a deux jours. à mm-hmm. l'université mm-hmm. Euh, ba ñu am sa benn CD boo xam ne jot nañu ko fa lakk. Mm-hmm. loolu noo ko jàngatee d'abord. waa ni ma ko jàngatee moom mooy université centre de de savoir la. tey jii yaakaar naa ni CD ak livre ak yooyu yëpp du lu nit war a lakk parce que propriété intellectuelle la. man je suis un artiste tey yàlla dogul ma def ma am benn xaar ma yàlla ak ay étudiants man dama xamul lan moo war a boole lan moo war a def parce que loolu Sénégal yëpp la jaaxal lan moo war a mun a def ay ay ay étudiants yoo xam ne dañu jóg di grève parce que da ngay défendre kii leen tere jox seen non non ñoom jotewuñoo Macky dara non non xam nga il faut que nit ñi comprendre dara. Mhm. man damay def politique. parti politique boo gis ci Sénégal am na ay étudiants APR am na ay étudiants hmm. euh, Ablaye Wade am na ay étudiants Sonko affaire bi man avant buy am woo nañ ma une heure de temps avant ni ma ay étudiants Sonko ñu ngi jël say CD yóbbu ko pour lakk ko étudiants Sonko wax nañ ma ko wax man hmm. est-ce que comprendre la bëgg expliquer ay nit woo nañ ma wax ma loolu tey parce que yow mi may poser question sax yow war na la mun a jaaxal ay étudiants yu grève lan moo ci yoonu un artiste ba ñu dem di lakk CD du maay fay du man maay fay bourse keesu état du ma ministre de euh, kii nu mu tudd enseignement supérieur du directeur u kudd aw ma amuma rapport man sama doom mu ngi jànge université man je suis de tout cœur avec les étudiants étudiants yi tey bu ñu amee problème man war naa mën a bokk ci Sénégalais yi nga xam ni dañuy taxaw kaasal étudiants yi te li may wax mooy état bi waruñu toog ba ay étudiants di mer bay génn di sànni wala di taal ay pneu parce que tey maa ngi liir démb moo nekkoon anniversaire u président de la république maa ngi liir ñu ne moom ci bourse bi mu njëkk a fayeeku bi mu ko fayeekoo daf ko yóbbu seen kër parce que ay parents amuñu woon doole ci lañ wut ndox ci lañ kii def branchement ndox quoi yi mhm. pour di ndox seen kër tey am na étudiants yoo xam ne tey ji ci bourse yi ñuy fayeeku ni dañ koy jël même mu bari mu tuuti dañ koy yónnee seen dëkk ñi fongala mi lañ dëkk ñi ñu ngi dëkk Tamba ñu ngi dëkk fële mhm. est-ce la donc nag damay lancer message l'état du Sénégal mhm. mooy waratuñu xaar ba étudiants yi di mer ba war a mën a génn di marche te ñu leen seen bourse te étudiants yi comprendre ni xam ni tamit waruñu nangu ku leen di manipuler war war mën nga far ci parti politique mais bu ci boole lu ci bokkul parce que man ñii samay doom lañ ñii samay rakk lañ ñii samay jarbaat lañ merewuma leen nag jéggal naa leen te yàlla tax parce que noonu la àddina kenn ku nekk soo meree ak ni nga koy manifester mais booy manifester da ngay manifester lu entre su fekkoon waa ji moo yor seen bourse su fekkoon waa ji moo leen war a fay te fayu leen wala waa ji dafa bokk ci lu leen war a fay wala dara sax ñu wax dëgg man étudiants yi su may xarit la ñu am ak ñoom benn ma yàlla kii ki nga xam ne nag moo mën i gancé loolu ba yaakaar ni tey ji war na mën a dox suma diggante ak étudiants yi juum na yow parce que sonk lañ la wax mais yow gëm nga ne sonk la non gëm naa ko parce que étu parce que tey ji ah, étudiant non parce que boo xoolee booy doon wax ci télé bi uh-huh. sénégalais nga sénégalais booy doon wax ci télé bi sax seen olof leerul boo xoolee ñi doon ñi doon def CD bi loo bëgg a wax di ko lakk non seen olof du nekk nekkul olof boo xam ne sama olof la wala sa olof yow hmm. du ma du ma xam nga bugguma bugguma xam nga danga nga may defal interview hmm. wax bu dofee nopp yi koy dégg dofuñu hmm. boo déggee booy ni ñuy waxee sax nga xam ni booy seen olof leerul est-ce que comprendre la ça veut dire que am na fu ñu far non foofu laa mun a yem booy daal am na fu ñu far tey jii man am naa ci ay source avant affaire bi am woo nañ ma ni ma ñi ay étudiants diw lañ. Mhm. et yow mi nekk sénégalais. tey jii man mooy li ma la wax léegi no wax bu dofee nopp yi koy dégg dofuñu. Mhm. ban rapprochement la am. entre un artiste ak élèves yuy grève pour fayeeku su kii loolu amul sens ça veut dire que ni tey man jëm nañ ma jaxaseeg militaires yi jàllul. def naa fi concert ci foire bi ñu ne jasaakalisé pour déstabiliser ma lu ñu def pour euh, déstabiliser ma bëri na parce que war naa fi def concert ci foire bi amul uh-huh. mu am ay nit yoo xam ni Sonko la ñu àndal dem photo spectacle bi nii way jasaakalisé bind uh-huh. mu nekk fi tole taxul ma daanu taxul ma am dara uh-huh. beneen bi ci topp ma xëy fi def fi interview comme ni ñu koy defee nii ñu coupé fi collé fi coupé fi collé fi ni maam góor nee na temps militaire yi Hmm. est-ce que la affaire bi militaires yi dem ba xam ni CMG bi tamit nekk nit ku muus koo xam ni am na xel. xool ko ni ma tiyaa rien fait. Hmm. li nga wax dara nekku ci même sax su fekkoon yaa ko wax dara newu ci. Hmm. te yàlla dogal na bi Covid bi commencé militaires yi jóg nañ ànd ak police ak gendarmerie di seconder sénégalais yi. te man boobu ba ma doon wax dama doon wax ci benn femme boo xam ni ki ma posé question daf ni ma am na femme boo xam ni dañ ko agressé démb jam ko 64 coups de couteau. ma tontu ci ci fukk ma ni ah mais tey ji police ak gendarmerie ñu ngi ñafe on a des militaires yoo xam ne fii dañuy entraîné ñëw xama genre mel noonu rek gars yi jël ko ni woy maam góor nee na yi dañuy entraîné di lekk ceeb di tëdd mel ni daal mais tey jii suñu militaire yi bu ñu nekkul woon ay jàmbaar terrorisme ni mu tojee Afrique toj Mali ah. toj ñëpp mais ñun on a de très bon militaire mm-hmm, mm-hmm. est ce que comprendre la bëgg expliquer il faut que nit ñi arrêté man dafa am ñu may déranger parce que man sama papa dama daan wax bàyyi fen moo gën julli je dis la vérité dëgg bi may wax nag am na ñoo xam ne daf leen di dérangé loolu moo tax dañuy jéem a chaque jour di xool fu nu jaar jaar nañ ci militaires yi jaar nañ ci ay concert tey ñu ngi ci étudiants yi suba dinañ dem feneen mais xam nga lan moo am xam nga lan moo bon ci nit uh-huh. ñu ne diw ñu ne góor jigéen la ñu ne diw ñu ne sàcc la uh-huh. ñu ne diw ñu ne trian la uh-huh. ñu ne diw ñu ne dañ ko fekk ci jabari jàmbur mais man yàlla dogal na nii tey ci damay wax ci presse ku ma xamal lu ñaaw wax ko du ma sàcc du ma fen du ma du ma def yi liggéey laa xam je suis un chanteur way naa vingt cinq ans de carrière laa def fii am na ay waykat yoo xam ne dil nañ fi dilu visa dil nañ maam góor doo ko dégg boo xam na lan ngay dégg dafa dëggu léegi nag loolu am na ñu muy déranger d'accord d'accord est la mhm, mhm. mais étudiants yi encore une fois ñii samay doom lañ ñii sumay rakk lañ ñii sumay jarbaat lañ jàppaluma leen dara tey la ñu gën a nekk sama xarit te maa ngi ñaax état bi mhm. buñ leen amalati xaalis ba ñuy mer bay marche d'accord si wàllu si wàllu étudiants yi euh, dama ci bëgg relance waat tuuti muy euh, wàllu cassette yi mm. euh, CD yi ñoom jàppoo ne peut-être dañu meree Cheikh Omar Anne mi nga xam ne ñoom nee nañu CD yi Cheikh Omar Anne moo ko moom moo ko jënd. waa mais am na Cheikh Omar Anne am na droit jënd CD man sénégalais la lu ci lu ci yoonu yoonu Sonko bu boobaa dama bëgg dama bëgg nga déglu ma wax uh-huh. man musicien la uh-huh. CD bi ngay wax ni génnul léegi de 2017 la génn. 2017 uh-huh. laa way CD bi. Uh-huh. sama CD bi ma ko génnee dama ci def benn single bu tudd gàcce ngalaama. waaw way ci Macky Sall projet projets. mais ku ànd ak Macky Sall bu ko neexee bu si gisee 50 CD du ko jënd wala 100 CD loolu lan la jotee ak étudiant ak yooyu c'est que dafa am ñoo xam ne xool nañ ba tàyyi parce que man damay déranger waa ji. léegi ñu xool ñu ne nañ jaar foofu mais su fekkoon damaa génne way kay di saaga étudiants yi wala ma génne way ni étudiants yi lii wala dara ñu mën a wax. amul sens d'accord. xam nga sëñ bi lii bu ñu si nekkee di continuer di wax da may affaire bi sax sens man sénégalais laa musicien laa xam nga su fekkoon dama bàyyi sama waaso man dem di def leneen ci leneen loolu ñu gis lu mais man sama métier laa yor waykat laa am naa droit waykat sénégalais bu ma neex c'est ça waaye yaakaar naa ni loolu loolu du faute wala yow faute la ci yow non non pas kon man xam nga kon yow yow tey boo doon àtte bu doon juge nga xam nga dañ ma tooñ waaye man mi ñu tooñ jéggale na amul solo d'accord kon leer na Sonko Sonko kañ nga koy way moom non man du ma ko woy hmm. bis bu defee lu jar way dinañ ko way mais. mais Sonko mu ngi def vacances. Euh, non boy euh, euh, vacances agricoles patriotiques non non non dama ni ay toolu jàmbur ku mu neex yow nga dem si tool bu la neex nga taxaw fa foto wu tool bi maa ko moom. non saa non non dama lay wax. Mhm. man su ma neexee léegi ma dem fii ci waxuma la sax génn ci àll bi. Mhm. fii boo génnee Pikine ci jardin yooyu borom tool yi nekk foofu. Mhm. mooy ñuy roose fleur na il a fait le tour dama lay wax. Mame Ngor il a fait le tour du Sénégal dama lay wax. bëgguma ñu continuer di ci wax parce que defal nit ki promotion xam nga Sonko lan la créé ci réew mi ay saaga ay saagakat la wut ku nekk ci internet bi Sonko moom mën na dingat sénégalais yi mën na taxaw ni Cheikh Omar Anne sàcc la mun na taxaw ni euh, euh, euh, diw sàcc la moom moo am na ci droit mais sénégalais bu jóg wax Sonko dara gaa yëpp dajaloo ci internet bi di la saaga kooku c' est une façon de dictature la nañu waxante dëgg Sonko kenn du ko tudd ci réew mi man nag dañ maa saaga saaga saaga ba ma nagam xam nga man <laughs> Baye Fall laa man ki ma yaakaar mooy Seera xam ma Seera Fall lan la wax uh-huh. Seera Fall daf ni biir na wasin na rek laa déggul moo tax ab baay Fall boo koy saaga da nga koy dimbali ñoom bës lañ may defal mais bu fenee mu wax lu dul dëgg ma ni lii mu wax nii c' est pas vrai du dëgg bu demee ci ay toolu jàmbur dem abbu toolu jàmbur filmer ko ñëw taxaw naan vacances bi moo tool yi il faut que nit ñi xam ko. oui mais image <laughs> bi image bi mu si véhiculé maam yow tamit bu ma neexee boobu def ci wàllu euh, yooyu yooyu gis nañu ne ñëpp magnifié nañu ko. waaw dama ni magnifié yow da nga doon wax ne doon euh, baal ma baal ma baal ma baal ma rek da nga doon faral di wax ne bu fekkee ni nit def na lu baax fii ci Sénégal mu doon njariñu Sénégal. Hmm. donc koy wax ndax ci dëggu lañ la xamee. Hmm. mais est-ce que mënuñu nangu ne Sonko loolu mu def. lu lu jaar baax parce que tool yi moomu ko mun nga dem ci toolu ku la neex nga taxaw photo loolu du loolu kii waaye xasaay am est-ce yeneen question. mais il ñu wax ci aussi parce que loolu aussi ci ci mbir mi la bokk. tool yi jàmbur la d'accord léegi euh, euh, am na am na benn benn scène bu ñu jotoon gis. benn scène. Hmm. benn scène bu ñu jotoon gis. Hmm. ci wàllu Sonko la de loolu foog ñu aborder ko balaa ñuy jàll ci leneen nga hmm. baal ñu rek. maam Ngor euh, mooy bi ngeen dajee ci. ci ci kër Bougane ci cité góor kër góor gi. waaw gis nañu ne daf la doon bëgg nuyu waaye yow da ko dumóoyu waaw mais est ne loolu aussi. non xam nga xam nga xam nga man maam góor jazaaka laa tudd. Uh-huh. Sénégalais yëpp Sénégal moom yàlla dimbal na réew mi ku fi juddoo xam nga kan mooy maam góor. Uh-huh. xam nga tey bu ma jógee ci ascenseur di wàcc yow ngay ñëw di dugg si ascenseur. Uh-huh. man xam nga nu ma tudd. tey jii kiy dugg si moo war a nuyu ki nekk ci biir vrai faux mais boo ñëwee waxoo sama tur. defoon benn geste boo xam ni. wane nga ni xam nga ma ay non du ma la nuyu. boo xamee sama tur nag. ñëw di ma jé di jéem a profité pour minimiser ma dama lay damate. maanaam da nga doon defante foofu. non non non du defante dama lay wax benn affaire. Mhm. gis nga dañ ne juddu bu rëy ndey ak baay. Mhm. mais fulla ak fayda borom olof moo ko wax. man ku ma bëgg minimiser lu ñuy wax lu tax tubaab di wax légitime défense. Mhm. ku la bëgg a rey da koy rey. nit ki bu ñëwee bëgg la nuyu nuyu sewal. ma damate la loolu rek la. d'accord <laughs> mais mais mais Ngor yow jullit nga. Ousmane Sonko jullit na. waaw euh, yonent bi dafa jàngale ci ne ci wàllu nuyoo. yow yaa ngi ci temps yonent bi nga nekk nii de. bàyyi ma dugg ci Sénégal bu bees bi lañ nekk. léegi ah. réew mi xam nga lan moo xew. Uh-huh. ku la mbëkk nga mbëkk ko loolu moo xew.